mbokk internet Dakar Live TV dal leen ak jàmm ci seen xabaaru bés bi ñu daal di ñëw ak yéen nag ci Serigne Moustapha Sy gannaaw nu mu koy la yi nga xam da cay ba di gàmm bi nga xamante ni moom la ñu daal di amal atub 2023 moom Serigne Moustapha Sy ab conférence bu mu doon amal def ay révélation yu doy waar gannaaw nag bi nga xamante ni rek daal dinay wax ni daal ki nga xamante ni Euh, moom moo di Serigne Babacar Sy euh, Mansour mi nga xamante ni jamono ji moo daal di toog ci jal bi euh, daal dina yëkkate ay millions yu bari ngir daal di koy fay rek ñenn ci ñi nga xamante ni mën nañ leen tuddee ay njabarkat ba nga xamante ni sama ka daal di jubal ci ki nga xamante ni rek doom la ci Serigne Seex gannaaw ba mu ca weesoo jamono ji daal dinay faatu moom nag mu xam leen ni daal ba mu noppee ci moom ci Serigne Moustapha si daal la daal di jublu waaye nag moom moo leen di të beneen révélation bi nga xam ne daal dina koy amal moom Serigne Moustapha Sy ba tey mooy wax mu daal di xamle ni rek artiste bi la di Coumba Gawlo Seck ginnaaw ba mu ko wëyee moom Serigne Moustapha Sy gës na la nga xamante ni moo daal di tof tollu rek ci kawam ndax ginnaaw nag ba nga xamante ni daal dina koy wëy dañu ko rek daal di fexeel daal koy teg ab feebar ngir rek ñu daal di wax ni li mu wëy Serigne Moustapha si moo tax feebar bile daal di koy dal te loolee lépp seeni loxo seetu ci ñu àddu ci leneen wax itam ci Anta ma ngay xam ne ni kon euh, dana daal di nekk candidat ci élection présidentielle yi ñu jëm atub 2024 euh, gannaaw loole nag mu tàmbali rek di wër ci gox-goxaat yi ngir rek euh, daal di laaj askan wi ndax ànd nañu rek ci li nga xamante ni daal di ñu koy bëgg ngir daal di defal réew bu Sénégal waaye mu mel ni rek niki démb ba mu demee ca diwaan bu Mbuur foofee nag neex la fa benn yoon ndax itam lañu fa daal di nemmeeku daal di nay bokk yooxoo yi nga xamante ni daal di koy gis gannaaw nag bi mu taxawee ci ak kaw oto bi daal di génnee ñaari loxoom waaye tamit di ko tàllal askan wa nga xamante ni ñoo ko doon teeru mu mel ni rekk yaakaar bu tas la fa daal di amee moom Anta Babacar Ngom gannaaw nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndawi mbuur ya ñoom daal la ñu daal di def moo di daal daal di koy sonkoriser yooxu ko bu baax a baax di ko woo ko Ousmane Sonko moom lañ daal di nemmeeku foofee ca gannaaw Anta Babacar Ngom bam fa demee ngir amal ay nemmeeku ñu daal di dem ci actualité people fekk mi yaa gisee ma nga xamante xamante ni daal dinañ koy gis mu daal di publier ab photo bi nga xamante ni daal ku góor la ci daal di àndal ñoom ñaar ñu daal di jàppante seen ay loxo gannaaw ba mu génnee nag ci relation ak kile di Nofez moom mi le daal di euh, publier ñu ñu bëri nag di laaj ndax du euh, Mia Guissé mi le dafa daal di am nag ab copain bu bees ndax du dafay waajal beneen mariage bi nga xamante ni jamono ji ñu bëri ña ngi cay addu di wax ne rek mu mel ni mi Guissé daal dinay euh, gis la mu doon seet maanaam keneen a dundal xolam boobee photo euh, moom yaa gisee euh, moom moo ko daal di euh, publier. ñu daal di wax ci beneen sëy mu di Astou Dione gannaaw ba mu génnee ca digganteem ak Cheikh Yérim Seck sëy bu yàggul lool coow la bari woon lool ci seen diggante jamono ji mu mel ni rek moom Astou Dione daal dinay déggate alxayri ca beneen boor ka nga xamante ni moom moo ko daal di takk ma ngay wuyoo ci turu Gaydel bokk nag ca njiit ya nga xam ne ñu ngay liggéey ca Sonatel gannaaw nag ba mu ko takkee léegi mbokki coow li ma ngay day gën di continuer ndax gis nañu ku mel ni rek Kaliphone Sall kàddu yi nga xamante ni daal dina koy yëkkati teg ko ci ndoddu Astou Dione moom nag ma ngi koy xamal ni ko nag dañu bëgg rek nga daal di tëj sa làmmiñ ndax nag ba nga divorcé ak seex Yérim Seck ak léegi yow rek la ñuy dégg ngay wax yow rek yaay yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci kawam waaye nag li ngay def nii le dafa daal di doy sëkk ndax nag yow si sa bopp Cheikh Yérim Seck moo la daal fase ko waxee réew mi yëpp dinañ génn ci yow jigéen yëpp dinañ génn si yow te itam dangay arrêté kàddu yi ngay wax sinon dinañ génne lépp lu ñu la xamal te bu boobaa euh, danañu yàq sa der ci réew mi mu nekk nag ab menace bi nga xamante ni euh, moom Kaliphone Sall rek daal dina koy indi ci diggante Cheikh Yérim Seck ak kile di Astou Dione euh, wax ci beneenub mariage bi nga xamante ni ba tey mi ngay def tour bu baax a baax ci réseaux sociaux yi diggante Aïcha Ñing ak ki nga xamante ni moom moo di Aziz Ndiaye gannaaw nag ba mu ko takkee lu yàggul dara coow li bëri woon na bu baax a baax ci réseaux sociaux yi am ñu doon wax sax naan ki nga xamante ni moom moo di Miss Ndiaye di aawooy euh, ki nga xam ne moom moo di Aziz Ndiaye àndul euh, benn yoon ci sëy bi ak ki mbokkam waaye bokk ci sax ay doomi Aziz Ndiaye ñoom ñii ñëpp kenn àndul ci boobu lee sëy gannaaw loole nag mu mel ni rek ni ki demb ay vidéo daal nay fësal ni nag am na ñenn ñu nga xam ni xëy na ànd nañu ci sëy bi ndax daal di dañuy gis nag ay doomu Aziz Ndiaye ñu daal di taxaw ak Aïssa Rasoul ñing euh, photo woo ak moom euh, ñu daal di nag nekk ay euh, complice yu nga xamante ni euh, photo bi daal na koy wane ginnaaw nag ba mu demee daal doxi ji ay gorom daal di leen di seeti nemmeeku leen moom ay sarasu Sall gis nañu ay photo yi nga xamante ni ànd na ci ak ay doomi Aziz Ndiaye mu di photo yi nga xamante ni ñu bëree bëri ci Sénégalais yi daal na leen di bett bu baax a baax ndax nag boobee sëy bëri woon na lool ay coow yi nga xamante ni daal dina ciy juddu coowal magel coowal may bu njëkk ak yi ni mel loole lépp nag ñu nemmeeku woon ko euh, ci boobule sëy waaye daal mu mel ni jamono jii euh, moom Aïssa Rasoul euh, Gningue daal dinay seeti ay njëkkeem photowu ak ñoom ñu jeexalee ko ak coowal aw Baba Thiam Sala Sow gannaaw nag ci li nga xam ne moom moo di rek Amar ak kàddu yi nga xam ne doon na ko yëkkati ca boobule dossier ba ca mujj nag conférence de presse ba nga xamante ni daal dina koy amal waaye tamit ab rek chronique bi nga xam ne daal dina koy defal def ci benn chaine bu nekk fii ci réew mi lu weesu loolee bi nga xamante ni daal dañ koy teg ci ndoddam boobaak léegi nag moom délégué Amar ña ngi ko tegoon loxo ba placé woon ko sous da de dépôt mbokk yi fàttali leen ni ki euh, tey jii la délégué Amar di janook euh, juge bi euh, di leen sant bu baax di leen jaajëfal mbokk yi jox leen rendez-vous ba ëllëg incha allah ci beneen xibaar bu ñuy jottalante ak yéen jërë ngeen jëf